ñu bëri nag dañ may oo ma laaj njëriñu jaaro bi ak njëriñu ndomb bi li nga xam ne mooy wàllu jaaro bi njëriñam mooy wàllu boo ko takkee yàlla dana la musal ci cat cat du la jàpp mukk te boo ko takkee nekk ci place di liggéey képp koo xam ne mu lay mu la bañ ci place bi dana jóge foofu te képp ku la liggéey mu def la lu bon day delluwaat ci moom bu dee jaaro bi boo ko takkee incha allah yàlla dina la may wërsëg te dana ubbeeku nit ñi danañ la bëgg nit ñi danañ la sopp te foo nekk di wax nit ñi dañuy bëgg sa cofeel dañuy am cofeel ci sa wax te it sa wërsëg daal la daf koy yaatal su fekkee danga am ko danga nga nekk koo xam ne sa yaakaar tas wala loo yor mu dem wala lu ñu la jox doo ko mën a réaliser soo amee jaaro bi incha allah yàlla dina la dimbali ci loolu su fekkee ne da nekk koo xam ne nag euh, am am daf la jafe wala nga nekk koo xam ne da nga bëgg wàllu sëy walla nga bëgg wàllu ubbeeku wala nga bëgg wàllu yokkute yooyu yëpp incha allah su la yàlla wërsëgalee nga ab jaarub yàlla dina la dimbale bu fekkee ne nag danga nekk nit koo xam ne sa wàllu am-am day tasaaroo wala sa alal day yàqu wala cat daf la jàpp boo amee jaaro bi incha allah dana deñ ba set wecc